maanaam dafa am ñoo xam ne boo leen nar a teg injustice billaahi nga tëral leen rey leen moo leen gënal foofu ñu lay bàyyi nga leen teg injustice te dites-vous que ne Eiffage je vais me jusqu'au bout avec vous même si vous allez avoir vous serez serez victorieux wallahi ça ne va pas être facile ça moom sachez-le quoi parce que man pare naa du ma xaar banque bi di ñëw di ma acculer alors que ñeen ñeen ñeen man mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak ñun sans limite TV votre site d'information amaat ñu mbégte lool àndaat ak yéen tey nag ñu ñëw euh, ngir waxtaan ci jafe-jafe yi nga xam ne ñenn ci euh, di liggéey ci entreprise yi ñu ngi koy am sans limite TV euh, comme ni mu koy defee tey nag ñu am mbégte lool dalal ki nga xam ne moom mooy Ousseynou Thiam Ousseynou caam nag nekk ancien délégué du personnel Eiffage ñu ñu licencié ko maanaam dàq ko ci dàq boo xam ni euh, jaarul yoon moo tax tey mu ñëw sans limite TV ngir rek indil ñu ay leeral par rapport ak Eiffage ni muy doxee euh, la ñu fay dund jafe-jafe yi nga xam ne moom moo fa am rawatina euh, personnel bi nga xam ne moom moo fa nekk Ousseynou ñu ngi lay bu baax bàyyi la ak nga nuyoog ñuy seetaan sans limite TV. aouzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim wa man yattaqi llah yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min xaysu laa yaxtasib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbuh inna allaha baaligu amrihi qad jaala allah li kulli shay'in qadra asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di ziar. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay fay bu baax nu Thiam euh, maa ngi koy wax sànq rek moom nag euh, doon liggéey foofee ca Eiffage alors dañuy euh, ñëw tuuti. ci sa ci sa parcours nga wax ñu exactement nag nga def ba dugg Eiffage mm. laataa ñu ñëw kenn la nga xam ne jot nga fa euh, maanaam la nga fa joto euh, dund waaw euh, Eiffage nag li ma def ba dugg fa mooy dafa am benn période boo xam ne dañ doon def ñoom extension bi c'est-à-dire que mooy bi ñuy yokk gaaru euh, Toglu ak euh, ñaari euh, CBI mm-hmm. am benn maison de recrutement bu ñu tuddee ISC institut international staffing company mm-hmm. ñu defoon recrutement en masse ma déposé woon fa yàlla defal ma xéewal mm-hmm. ma jaare fa ñu jël ma daal Eiffage nag def naa fa sept ans maanaam su fekkoon maa ngi fay liggéey ba tey ba fi mu toll nii def naa fa sept ans bien que cinq mois ci ginnaaw lañu arrêté sama contrat en f en avril plus tôt mais depuis février dañ ma joxoon euh, maanaam euh, mise à pied conservatoire le temps ñu yóbbu sama dossier inspection waaw ci biir sept ans yooyu nag mën naa ne six ans yëpp def naa ko fa te kenn mësul dégg Ousseynou moo def lii wala Ousseynou moo wax lee sans sanction sans avertissement sans demande d'explication sans rien mm-hmm. ñëw nekk délégué en moins de ci biir mandat délégué bi jeexagul sax ñu bëgg yenn doxin yi nga xam ne mu am ci mi ngi am ci biir entreprise bi nga koy dénoncé te yenn chef yi di ko doxalee mhm. waaw loolu daal ma am ci lu ma metti loolu nag ne euh, comme ni ma ko waxee ci sama page Facebook il faut toujours avoir le courage de, dénoncer parce mhm. nit boo bu ñu tegee injustice injustice sa kaw da koy dénoncer mhm. parce que dénoncer bi nga koy dénoncer day tax ëllëg ki koy def dina xam li ko ci mën a fekk ndax euh, nu ma ko jëlee exemple ci maanaam euh, bu fekkee ne dafa am cambriolage yu faral di am si benn koñ. Mhm. wala ay agression wala dara nit ñi dañu war am responsabilité dem di ko kalaame. Mhm. Euh, autorité compétente yi muy gendarmerie wala police de proximité yi. bu ko defee loolu day tax ñoom même bu fekkee sa jàngoro fajuñu ko alerte lay doon pour que ñuy mën di bàyyi xel koñ boobu di xam ne loolu dina fa am. loolu moo tax ma ne tey lii sama cas bi il faut que ma exposé ko. ba ci kanam àdduna ba ñëpp xam ko bu ko defee Eiffage même bu fekkee dañuy am ndam sama kaw au parce que fa laa jëm ak ñoom cour suprême mhm. quand arrêter ces agissements par rapport ak ëllëg wala leneen lu mën doon parce que jaarul yoon d'accord mhm. alors mën nañu xam exactement euh, euh, lan lañ la teg mhm. lu metti loo xam ni tey nga génn da nga koy dénoncer waaw xam nga Sénégal nag soo waxee rek dañ naan dafa frustré wala nangam mais c'est pas du tout normal <laughs> Euh, poste receveur bi ma duggee woon parfois day am ay promotion interne am ñoo xam ne euh, du wax xam nga boo ne yaa leen fa jiitu parce que day mel ne après da leen day mel ne daal euh, maanaam principe bi ñu teg mooy principe de de de lañ teg pour nga mën a avancer mais du loolu. Mm-hmm. wax dëgg yàlla c'est des gens très compétents ay jeunes yu mën seen liggéey. yoo xam ne promotion interne day am ñu déposé comme yow ñu jël leen yàlla yàlla def mu jig leen mais ba yow say dossier du jàll ci parce que euh, maanaam comportement boo am ci entreprise bi wala neexoo leen daal wala yenn yooyu dénoncé ci biir euh, entreprise bi léegi nag kaw harcèlement mm. dafa bari dans le monde du travail de manière générale mm-hmm. mais particulièrement à Eiffage ba loolu tax entre euh, maanaam direction générale ci boppam dafa génneel boppam note bu mu tuddee bu mu tuddee protection contre représailles mm-hmm. maanaam protection contre représailles li ko tax a jug mooy bi pour que bu fekkee chef am dafa commencé di ko buntu xatal si loo xam ne jaarul yoon moom mu ñëw ba ci direction bi wax leen ko bu ko defee ñoom ñu wax ak chef bi mu mën a arrêté mhm. loolu foo ko dégg xamal ne kon y'a problème tout à fait parce que mënoo ñëw ne sa doom mhm. buñ la dóoratee ñëwul ma ko mhm. kon bu fekkee fekkee dóoru ko loo ko naan buñ ko dóoratee kaay ko <laughs> euh, exemple bu ma siy jël boo xam ne seen confrère ko def bu Sénégal 7 a marqué tout le monde te ba fu wax que même moom en licenciement bi daf ma metti loolu parce que ñun délégué dañ si def luñ mën ba pare ñu nduróo cas aussi cas harcèlement moom euh, euh, par malchance aussi mu dem euh, inspection du travail inspe entreprise bi proposé ko six mois de salaire. Mhm. pour mu dem. Mhm. ci koo xam ne liggéey bi muy liggéey moom la fas yéene yoree doomam ak njabootam. moom mi ngi woon en état de grossesse. mi ngi woon en état de mhm. grossesse. non seulement loolu mais nga proposé ko sax loo xam ne au moins. dina xam ne moom dina ci mën def beneen activité bu fekkee neexatu la mhm. mais six mois de salaire ci salaire boo xam ne du ma wax fii salaire yi mais Sénégal de manière générale fii salaire yi les plus bons salaires yi ngay dégg ñu naan kii si entreprise prestigieuse day liggéeyee ay deux cent mille deux cent cinquante mhm. lay nekk mhm. kooku nga fay ko six mois de salaire ça fait quoi même pas un million cinq cent lan la si mën mën a taxawal ak soxla yu bari yi ci àdduna bi ak njaboot yooyu kooku si lan la koy def mu jeex léegi léegi moom mu toog sans à l'heure où les jeunes ñi ngi jël di braver la mer pour euh, se rendre de l'autre côté mhm. la où il y un avenir meilleur mhm. moo tax comme ni ma ko waxee le trou de l'avenir se fout royalement de l'avenir de ses employés mhm. te loolu il faut le dénoncer pour que euh, l'État de manière générale et même les supérieurs de nos supérieur puissent y mettre un terme parce que trop c'est trop quand même quoi d'accord léegi léegi dañuy ñëwaat tuuti ci Eiffage laata sax ñuy jeexale ak femme bi euh, boo duggee Eiffage dafa am ay kuréel yu fa nekk du mën a sax kuréel mais dafa am foo xam ne fa ngay commencer. Mhm. ba fa ngay yegg tey euh, ci contrôleur wala nga doon leneen loo xam ne ci biir Eiffage la nekk. Mhm. alors ba nga ñëwee effage ban poste nga njëkk occupé. waaw man ba ma fa ñëwee léegi ba ba ma fa ñëwee ba nii nii nii post receveur laa yor. receveur waaw mooy mooy caissier yi nekk ci cabine yi quoi. Mhm. waaw mais am na ñoo xam ne aussi euh, xam nga rek Sénégal aussi ni muy doxee. mën nañ ñëw duggee si beneen poste boo xam ne moo lay féete kaw tuuti waaye euh, alhamdulilah daal. waaye problème bi mooy problème avancement ci entreprise yi maanaam c'est problème boo xam ne dañ ko war a waxtaane ñu xam ci ban xam nga nit waxuñu ne ñëpp war a am promotion parce que de temps en temps yenn postes yi yenn yeneen services yi maanaam ñi nga xam ne ñoo yor caméra péage yi pour superviser euh, tronçon yi ak ñi nga xam ne les contrôleurs euh, de fraude comprendre ak les monnayeurs ñi dem uti monnaie yooyu noonu parfois day am foofu kenn ku démissionné wala kenn ku kii léegi dañuy xool ci péage bi mhm. wala ci entreprise de manière générale koo xam ne poste bi peut-être ça pourrait l'intéresser moom mu déposé mhm. su déposé ñu trier dossier et léegi ku ku sa euh, chance génn nga nga nga dem quoi mhm. mais nit même su fekkee maanaam euh, avancé par le poste war na mën a am ay évolution salariale yoo xam ne maanaam grille salariale grille salariale. boo xam ci entreprise bu toll nii FA c' est à dire voilà. Mhm. ce qui fait le plus mal. Mhm. maanaam entreprise yi dañuy am de gros de de de de grands noms renom. Mhm. nga koo dégg mu ñu ko déggee ci wetu asamaan comme ni ma ko mën a waxee di ko déggee fu sori. nga jàpp ne lii lu lay wan nii fekk ne en réalité ci biir li ñuy wane ci biir ak li ci biir c' pas la même chose. waaw léegi nag. Euh, bon waaw noonu laa fa nekkee receveur ba am na ñoo xam ne ñoo ma fa jiitu. Mm-hmm. ñoo xam ne da leen di yërëm sax ñoo la gën a âgé jiitu la fa parce que mën mës nañu am altercation ak benn chef ñu téye leen ba tey mënuñu am promotion. Mm-hmm. parce waaw. te te te ci loo xam ne maanaam euh, xam nga euh, réalité yi si am mooy que ne euh, top management bi nekk ci kaw entreprise bi. Mm-hmm. ñooñu du ñu xam réalité yi am ci yenn service yi. sa chef de service da lay koñe. ci mm-hmm. promotion yow nee yow nit ki bu fekkee si sa service soxla woo ko fi wala da gis ne dafay am ak yow problème mais mu war am promotion ci génn pour génn sa service. kon kay kooku yombalal ko ko bu ko defee yàgg moom ngeen noppalu ci jàmm mais mal lañu war a génne fóot ko ba mu set ñu jël ko dugalaat ko suñu suñ suñu biir yaram yi mhm. on a des cœurs très noirs quoi wallaahi d'accord en tout cas war na am oui ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite ak mhm. ñi liggéey effectivement alors licence euh, licenciement excès de pouvoir à Eiffage mm -hmm. euh, harcèlement négligence des équipements antenne badge mm -hmm. rapido 16 ci 16 bi nga doon expliquer sànq mën nga ci ñëwaat bu ko defee sénégalais yi xam exactement naka la demee léegi nag dafa am maanaam euh, euh, négligence bu grave ci mhm. affaire dama naan logistique bi de manière générale. Mhm. parce que plus d'une fois da ngay gis maanaam bu fekkee di nga faral di jaar péage. nga ñëw romb gis benn waay bu yor antenne euh, kii am di def ni génne loxo bi nii di kërti kërti lu ne mu def ko fa. Mhm. nga xam ne daanaka yéeg ci kaw oto bi rek moo koy dese pour def nii antenne parce que antenne en fait ci kaw la nekk quoi. Mhm. antenne yooyu parfois euh, day am ay camions yu yor gros charge yi dañ koy laal. buñ ko pour que maanaam euh, comment dirais-je client bi nga xam dafa jënd carte rapido ba pare mais mu mën a am accès à un service. Mhm. mais mënoo jënd carte rapido ba pare di ñëw di traîner ci voie yi parce que dafa am équipement bu ñu war a defar te defu ko. Mhm. la gare de exemple am na benn antenne boo xam ne bi ñu ko laalee noonu on est resté plus d'une année boo xam ne antenne bi kenn defaru ko te loolu charge de travail boobu day ëlbatiku ci kaw parce que euh, client bu ñëwee avancé ci bi ba ñëw ba yaakaar ne day jàll arriéraat. mën na avancer ba ba ba passé la ba nga xam ne il faut que mu génn parti bi def ni tàllal loxoom pour jox la ko wala mu génn ci oto bi en fait loolu yëpp day day sax day ralentir euh, trafic bi quoi. Mhm. léegi nag euh, mu am aussi ay problème chaise wala par exemple lampe yi nga xam ne mooy éclairer pour ñuy liggéey guddi gis nga dañ am lu ñu tuddee CRA. mooy mhm. compte rendu activité. Mhm. de péage. dans chaque poste dans chaque cabine lii naax la fa boo xam ne euh, dañ lay jox pour que nga bind li nga xam ne mooy anomalie ci voie dans les trois jours maximum wala am na si yenn bu dee yenn anomalie yu gën a grave yi en tout cas dans le plus bref délai ñu mën ko résoudre mais gis nga da koy bind bu fekkee loo xam ne maanaam tant que nekkul loo xam ne luy arrêté trafic bi la kenn du ko lijjanti mhm. benn chaise mën nga ko bind plus de six mois wala trois mois tant que taxawoo ne tey du ma def poste ah billaahi duñ ko changé mhm. te foofu dafa am benn problème bu fa am parce que day am xam nga sénégalais ñëpp tolloowuñ fit ñëpp tolloowuñ détermination am ñoo xam dañuy bañ ku leen wax ku ku leen wax daal. Mhm. dara wala ku leen yàqal seen liggéey wala ku ku ñu baatal leen naan ay da da da mën a kaas wala affaire yooyu. am ñoo xam ne dañoo bind bind bind ba xam ne bind bi jariñatul dara. Mhm. ñu arrêté bind bi. léegi nag ñu ne nii ñun délégué ñu ne ça c'est un problème. Mhm. ñu jël benn enquête. Euh, ñu def délégué deux équipes ñii dem secteur est secteur ouest que Thiaroye BPV Thiaroye la Grande Gare ba Pikine ñeneen ñu commencé bu ba lu ñu dugg cabine par cabine jël jour délégation euh, syndicale pour mën a taxaw ci liggéey euh, soxla liggéeykat yi. Mhm. xool chaque cabine du fa manqué. ñu jël loolu yëpp def ko un rapport bi ñëwee ba jébbal ko le responsable du péage moom daf ne.

dinaa def benn communiqué dans notre groupe restreint de receveurs kese. ne leen dee leen bind anomalie yi parce que tamit nit balaa nga koy mën a dut baaraam day def fekk nga def li nga war a def. léegi bi ñu leen waxee loolu euh, léegi ñu ñëw ba euh, benn jour ma am poste lu ko jiitu sax pour que ma euh, boole yëpp. lu ko jiitu dafa fekk bi ñu ma war a affecté gaaru Toglu ma ne leen gaar boobu de yàgg naa dégg ay nit di fa plaindre ngir yàlla lijjanti leen problème pièces yi maanaam euh, problème pièce dafay posé parce que nit ku la jox 1000 francs boo ko weccee 400 dafay pièce day gaaw a jeex waa mhm. te c'est à l'employeur de fournir tout ce qui est logistique ak lépp loo xam ne dafa aju ci jublukaay bu liggéeykat bi war a soxla pour liggéey. Mhm. kon ñeneen ñu war a jox pièce. te effectivement ci biir rapport inspecteur du travail bi ñu ma yóbbee inspection loolu la leen wax ne leen ñeneen ko war a fournir pièce waroo leen xaar a génn cabine bi dem ne jox pièce wala du ma <laughs> a joxe mais dañ may retardé di ma jox euh, pour jox ma pièce wala ñu ñu xaar daal pour que di la bëgg a pour que ngay laaj client bi par force. Mhm. man leen du ma fi laaj benn client pièce di am ak moom problème. waaw mhm. léegi euh, sama chef bi mu xamee loolu am na ci ay nit ñu ma ne euh, nee na di il va te régler ton cas. parce que mhm. da bëgg yàq péage bi comme comme que boo commencé ne duma ma laaj pièce léegi day obligé ñëpp kenn du laaj pièce. ma ne leen moom si boppam joxoon naa ko benn projet boo xam ne dama ko ne pour optimisation de la monnaie. nañ fexe maanaam même client yi la koy proposé nañ def ñaari gaar yëpp 500 mooy Toglu 500 Rufisque 500 parce que Rufisque 400 la Toglu di 600. mais loolu c'est 1000 francs rek ba tey boo defee fu nekk 500 léegi problème pièce moom éliminé wu mhm. léegi ñu ne ñoom dañoo am problème ak par rapport ak bi mooy fixé prix yi nangam nangam ma leen d'accord mais quand na am ticket avoir boo xam ne nit ki su rombee fenn mais bu fekkee mënuñu ko wecc moom ticket boobu mu garde ko pour que bu demee beneen gaar mën a fayee ticket bi intégralement mhm. wala sax mu jaaraat dans deux trois jours beneen gaar lu muy mottali mu mottali ko tout à mais loolu simple mhm. mais c' est dire que ñoom tant que ñoom dunduñu réalité ak difficulté yooyu duñ ko def priorité ñu bàyyi ko foofu depuis ba mu am trois ans mhm. ba muy am trois ans nag tombé na ñu may yóbbu gaaru bi bu bu tëglu bu tëglu aéroport ma laaj benn client pièce wala monnaie di am parfois dañuy énervé wala duñ yor léegi nag euh, su fekkee da leen jox aussi ñoom euh, entreprise bi boo amee problème ak ak ak client dañ la naan wecc ko wecc bi ñoom ñoo ko moom mhm.

léegi euh, ñu jox ma mise à pied bu jours ci koo xam ne musul am benn dara depuis six ans ci yim nekk si entreprise bi. Mhm. ma ne fekk boobu ñuy soog a jógee euh, conciliation entre euh, ñun ak direction générale parce que dañu def benn waaja def benn grève pour prime d'intéressement bu ñu war a jox. Mhm. te foofu mooy souligner que ne prime de risque bi ba tey c'est exigence. Xavier Idié il faut donner la prime de risque à tes employés parce que à deux reprises des camions carrément percuté deux cabines. Hmm. yoo xam dañ leen raser carrément ba dër leen ci tali bi. Hmm. te c' était à moins de quinze minutes pour que agent bi mën a jël jël jël cabine. boo seetloo sax wallaahi. Hmm. boo boo jaar péage bi léegi dañoo yëkkati euh, kii bi euh, GBA yi. mooy mur bi noonu. pour que loolu moo ko waral. parce que ñoom dañ ne ils préfèrent prévenir le risque que ndoxuma la nangam nangam. risque bi fa nekk yëpp yëpp kenn mënu ko évaluer. parce que parfois am na camion yoo xam ne yuy yor euh, fer yi. dañuy daw ba mu yàgg ak ni ñuy kiiwee fer bi da non mais y a trop de risques <laughs> au péage. d'accord léegi euh, pour affaire chaise bi. Mhm. bi ñu waxee loolu man leen d'accord benn jour ma am poste le 2 mi ngi nii le 2 février. Mhm. te rapport bi ma lay wax nii ñu ngi ko def juillet 2022. ba février te si rapport bi si euh, juillet 2022 bokkoon na ci que ne chaise bii may wax nii que dafa dafa am anomalie. Mhm. kon c'est-à-dire kon ñoom bu ñu exploité woon rapport bi sax comme ni ñu ko waxee naan chaise du dara. kon ñoom kon saafara woon nañ kon problème mu chaise yi nekk si péage bi yëpp. mais il a fallu qu'on en arrive jusqu'au euh, ma bindal leen chaise HS ne leen nag su ma fi ñëwatee le deux ak le trois yëpp d'ailleurs su ma ñëwatee si benn cabine mu am problème mu chaise du ma liggéey. d'accord parce que ñenn ñeneen ne comme chaise mi ngi fi àggogo kon il faut le donner aux gens. Mhm. ma ñëw ba le quatorze à ma grande surprise cabine bi nga xam ne moom laa waxoon ne chaise HS ah. Mhm. ba tey ma fekk fa leen tey du liggéey je prends toutes mes responsabilités. ñu ne ma non da nga bëri problème nag nangam nangam ma leen de du ma liggéey de. Mhm. ñu dem jël beneen benn benn chaise bu baax ci benn cabine indi ko ci cabine bi ma doon wax man leen ah lii de mooy mën a am jàmm am. Mhm. ma toog liggéey ba journée boobu jeex. Mhm. le 15 nag maanaam chaise bi nga xam ne dañ ko jëlee woon fii nii bu baaxul bi. fi ñu ko yóbbu le 15 ñu posté ma foofu. ma leen ñeen tey rek ngeen xam ne yàlla julli la santaane ma ne leen da ngeen di changé bi ne leen. Euh, booy bi dafa dina xam ne man la amal affaire quoi. léegi bu fi ñëwatee pour affaire chose bu bu ko kenn changé. na liggéey noonu bu ko buggul moo xam ma ne leen baax na si loolu si lañ ma si la ma joxaatee nag une troisième demande d'explication parce que fekk am na beneen bu dox ci diggante bi parce que commencé na harcèlement bi. Mhm. benn masque boo xam ne dañ ma ko bëggoon imposer soloo ko alors que dama am sinusite. jour boobu ma ne sama supérieur mënu moom ak sama chef boobu ñoo bokk entreprise bu ñu jógee woon ñëw nekk ay ay ay ay mhm. di def affaire copinage daal ak mhm. affaire comme yëfu sénégalais daal ñu baal ma nag mhm. si si yenn sénégalais yi nga xam ne dama lay jàppal tànk koo xulool ma xuloog moom koy xeex ma xeex ak moom loolu bëri na lool ci réew mi ci jamono voilà voilà léegi nag mu koy jàppale ci xeex bi ak ñi nga xam ne maanaam dañuy nekk si entreprise lu ñu xam pour nettali chef pour am ay faveur am wala nangam nangam man leen man nag di ngeen xam ne ci yàlla dong laa wàkkirlu waaw duma leen sax faale lépp foo leen ma dinaa fa dem ak ñeen Euh, léegi mu takk loo masque bi ma ne ko mënu ma takk masque parce dama am sinusite mënu ma ñëwul def arrêt de poste ñëwul nga wàcc quoi ma ne ko ma wàcc mhm. ma wàcc ñëw bind koo sama d'ailleurs mun naa la jox date boo xam ne bu fekkee da nga leen nar a interpellé ñu nar ko weddi mën naa la jox date boo xam ne sama CRA comme nii mhm. dama si bindoon halte harcèlement d'accord halte harcèlement parce que sa ah, commencé ça ça suffit mhm. léegi euh, note de euh, note de de de de comment dirais-je de protection contre représailles bi ma la wax sànq. Mm. bi ma demee ci bureau euh, directeur de ressources humaines fekk ma jógee sama mise à pied bu huit jours bi. bi ma ko waxee ne ko waxal ak sama chef yi parce que dañoo nekk di ma ërtal ndax li may bañ nee naa du ma laaj pièce <laughs> te boobu la commencé. Mm-hmm. ak yenn yu may dénoncé ci péage bi moo tax ñu bëgg ma ërtal. d'ailleurs am na sama benn supérieur au cours d'une formation muy wax généralisé mais il s'adressait à ne fii péage bi tant que yaa ngi fii nekk di casse doo avancé xam nga loolu c' est tellement révélateur c' est tellement révélateur mm-hmm. directeur des ressources humaines non seulement jël ay responsabilité pour wax ak sama chef wala mu wax ko directeur d' entreprise bi mu jël ay responsabilité mu bàyyi noonu def ko affaire daal loo xam ne c' est pas prioritaire ma xam ne kii narul jël responsabilité euh, bi ma ne du ma liggéey ci chaise bi ñu jox ma troisième demande d' explication en moins de six mois koo xam ne def na six ans ci entreprise mm-hmm. boo xam ne juge boo mënti taxaw danaan li nga def nii wax dëgg yàlla hmm. bari na bari boo xam ne kenn mënu la défendre tout à ma xam loolu nag hmm. comme euh, directeur bi jul ay responsabilité am ma répondre sama chef réponse bu saf sap dem ci groupe euh, euh, groupe les délégués vous parlent ba entreprise yëpp nekk du dugal ko foofu te loolu je l'assume parce que entreprise il faut que les gens prennent leur responsabilité mel ni xeex bi da nga ci wet wala bon xam nga maanaam day am yoo xam ne aussi du neex a wax hmm. mais xam nga nit comme li ma wax sànq rek Euh, say mbokk luñ la bëgg-bëgg bu ñëwee ba teg la ci kuusu bàmmeel. Mhm. fañ fa la mën a yem. d'accord mais am ngeen syndicat boo xam ni. voilà euh, euh, foofu laa jëm. Mhm. xam nga syndicat national yi li ma sam benn rakk papa di wax papa Xaadim maa ngi koy nuyu au mu ne gis nga boo ñëwee ci garage u taxi yi nee na boo fekkee benn taximaan yi ngeen baal ma nag <laughs> mais boo fekkee benn taximaan boo xam ne dafa wàcce vitre bi nga fekk ko ci ker gi. mu yéegal tànk yi nii toog toog nii di féexlu mhm. nee na bul sax waxaale ak moom demul <laughs> parce que gis nga boo ko waxaale ak moom ne ko damaa bëgg a dem fenn mhm. da wax prix boo xam ne mhm. daanaka yow da nga naan kii moom da <laughs> liggéeyul maanaam ñi yor centrale syndicale yi dañoo egg ci foo xam ne ci âge amatuñ lu ñu prouver ñoom aussi il sont à l'aise hein il faut le dire lu dul maanaam maanaam loo xam ne lu scandale duñ jug wax ci kon nag day am foo xam ne yow yaa xeexal sa bopp personnel bi de manière générale mënuñu def benn euh, euh, action budul ne dafa fekk délégué jiitu leen si. Mhm. te délégué aussi dañu am limite parce que comme ñoom ñu ngi si biir entreprise bi ba tey am na maanaam euh, dañuy jàpp ne peut-être euh, bu ñu ànd ak man si presse bi nii peut-être ça dénigre un peu l'image de l'entreprise wala dara. Mhm. man je les comprends quoi. mais aussi je je leur je leur ai dit que je prends mes aussi. Mhm. parce que mënu toog ministère euh, inspection du travail bu Thiès ak ministère du travail yëpp boo xam ne ñoom teniruñ compte bi ñu def ci man bëgg a maanaam chaise boobu ñeneen yi déclaré wuñ ko kon baax na. ak tamit li ma tontu sama sama sama sama sama sama sama supérieur. Mhm. te dama ko def pour me défendre parce que trop c'est trop quoi il le que tout le personnel sache ses agissements dans l'entreprise. Mhm. parce que inspecteur bi daf ne chaise bi du moment que ñeneen ñi déclaré wuñ ko kon man donc maa ko déclaré. kon mais ñeneen ñi comme li ma wax dafa am ñoo xam dañuy ragal am ñoo loolu moo tax mm-hmm. mais li ma jaaxal mooy da am contrat à durée indéterminée contrat à durée indéterminée mm-hmm. on a licencié en plus et sans droit quoi sans droit waaw léegi nag maa ngi leen dégg ñu naan ay euh, comme damaa taxaw pour bëgg a yàqu turu entreprise bi man leen yàquma turu entreprise bi mais lépp loolu ci def pare naa mm-hmm. parce que du ma am la banque qui m'accule di laaj ay échéances a verser banque moom moom xaalisam ku ko leb ah di nga ko fay mhm. euh, que jullit day leb wala si banque wala kii loolu c'est un autre domaine su ma demee ba gis banque boo xam ne day leble sans intérêt bu boobaa on va parler de <laughs> de de crédit halal ou de crédit haram mais mhm. ce qu'il y a lieu de dire ak lu ñu war a wax dëgg-dëgg mooy que euh, acharnement bi foofu ak maanaam nit ñi ni ñu fay dundee metti na mhm. waaw léegi nag à un moment donné comme euh, je viens de dire il fallait que je prenne mes responsabilités loolu laa def nag haut et fort partout. d'accord waaw alors bu bu saafara amul. fan mhm. nga jëm ak ñoom. boo euh, fi mu toll nii benn recours moo ma dese muy cour suprême. cour suprême ak le quatrième pouvoir. Mhm. parce que ce n'est pas pour rien qu'on dit que la presse est quatrième pouvoir. et effectivement c'est quatrième pouvoir. Mhm. parce que entreprise yi lu ñu nekkee maanaam. Euh, nit ñi ñoo amul courage di leen dénoncer rek wala jàpp ne boo demee kenn du la jàppale wala mais gis nga nit booy de dara yow nekk ci rek yàlla lim la denc loolu yow xamoo ko. booy def dara yow defal li ngay def rek yàlla mënoo fexe ba mu walla ne la lii boo defee nii nii lay abouturer wala nii nangam nangam dangay nekk ci li nga war a nekk rek lu ñëw fekk la ci waaw moo tax j'ai envie de me battre bu bout ma ne leen nag comme que banque va maculer de toute façon te dañ may envoyé mise en demeure parce que boo toogee quelques mois liggéeyoo sa sa sa salaire jàllatul dañuy xam ne licencier mhm. te sax entreprise bi day envoyé notification banque pour wan ko ne ko ni suñu kii suñu contrat ak moom jeex na mhm. comme léegi banque bi damay waaj a porter plainte ñeen tamit ñeen du ma ragal seen plainte mhm. comme boolu da war a tëdd kaso benn yoon rek <laughs> mais nga def ko benn yoon oui te xam naa ko comprendre naa muy nuyu sama ak sama papa di leen wax ne maanaam euh, doom ju nekk dafa am mission njaboot gi itam bëgg nuñ cee mën nañ cee wax en fait mhm. vu que da nga doon liggéey di ci kër gi tey buñ la licencié parce que tey famille mhm. euh, am nañ ci benn taxawaay boo xam ni itam faw ñu euh, mhm. faw ñu def ko waaw xam nga maanaam Sénégal jeunes yi ils sont très parce que maanaam famille yi souvent duñ comprendre peine yi nga xam ne moom la nit di dund ci barabu liggéeykaayam soo waxee xam nga lu ñu lay wax defal nit ñëpp rek noppil nga liggéey wala na kii nangam nangam te kooku moom souffrance yi muy dund xam nga nit est ce que xam nga nit dina am surmenage ci wàllu liggéeyam ba nga xam ne bu ñëwee maanaam da koy créer sax isolation ba nga xam ne dootul am envie taxaw wax ak kenn. Mhm. wala maanaam da koy dugal ci foo xam ne tellement qu'il est harcelé rapport am ak humain yi mu war am ak soxnaam ak ak waa këram sax day wàññeeku parce que temps de récupération bi mu war am ci kër gi concentration ak maanaam liggéey. c'est un épanouissement. Mm. liggéey épanouissement la. tubaab lu mu wax le travail enlève de nous trois grands mots. l'ennui mm. le vice et le besoin. mais loolu kon lool loolu maanaam luy sagal nit la ak luy yëkkati nit la. tout mais warul nekk loo xam ne nit ki da koy war a def ñu ko ci war di tooxal. Mm-hmm. wala nga bëgg ñëw wan ko ne ko maay sa chef tant que li ma bëgg defoo ko nit ñi affaire chef moo war a jeex Sénégal. Mm-hmm. nit ñi ils ont des yoo xam ne liggéey moo leen boole. <laughs> mais affaire chef mooy lan moo bëri ci entreprise yi moo bëri ci entreprise yi te moi je ne l'accepte pas hein mm-hmm. franchement liggéey lañ séq nañu am euh, ci liggéey amul ku may sukkal mm-hmm. amul ku may raamal mm-hmm. yëf yi yàlla dong la ñuy jaamu d'accord ak ñoo fonk mag ñu baax nga ko ci Eiffage bi naa manifestation des fois mu am ñu toj yenn affaires yi euh, euh, yooyu itam nag ngeen ko daan dundee waaye loolu sax loolu rek jar na prime de risque nag sax far wallaay loolu rek dafa jar prime de risque mais gis nga su amee déjà dañ la naan euh, su fekkee ne ñëw na ba kii am parfois dañuy wax ne bu kenn liggéey quoi mooy journée yi ngay gis gars yi di ñëw def porte ouverte pratiquement. Mhm. ñëw jàll noonu ci péage yi quoi. Mhm. mais c'est gros scandale maanaam ci cause la def gars yi. fi mu toll am na ci sama benn xarit boo xam ne gars dañ koy tooñ ak benn audio. Mhm. bu bu mu defoon euh, <laughs> bu mu defoon bu premier manifestation yi di am à Thiaroye mais ni mu defee audio bi sax dans le groupe euh, panel professionnel. moom sax si boppam da après ay ree da ko jàpp tellement que affaire bi daf ko daf ko jëlee kaw. Mhm. waaw te tamit gis nga France gars yi dañ koy wax rek neexutu dégg nag mais euh, gouvernement français il a intérêt maanaam wax ak ay entreprise am rapport yi ñuy am ak euh, maanaam leurs employés dans leur pays. Mhm. parce que gis nga nit li ñu naan nit ku nekk ambassadeur sa réew nga fépp foo dem. de la même manière aussi entreprise seen bopp tey jii entreprise chinoise bi bu ñuy te pourtant entreprise boobu la. tey jii fi mu toll nii euh, bu amee koo xam ne dafa nekk si koñ. di génn di fa seme pagaay wala muy tooñ nit ñi dañ dañ naan kooku mun na dem ba tax ñu naan ñeen seen waa kër. Mm. te pourtant kooku rek la. kon nag kon maanaam France fi mu toll nii c'est une exigence ak surtout sentiment anti français bi nit ñi am te c'est une réalité. Mm-hmm. parce nit mënoo ñëw di ko liggéeyloo ba pare. yow di leen traité noo xam ne yow sañoo koo traité sa employé yi nekk en France. ñun man am naa sama copain bu nekk euh, foofu. mais nee ma ñoom prime de leen koy fay. mais lu tax fii ñu ñëw ba Sénégal di ñu bañ a prime yoo xam ne bu ñu demoon ba la koy jox sax daanaka asaka lay doon. mais il faut que le respect mutuel. te il faut que ñu xam ne aussi gis nga jeunes yi fi toll nii. amul kenn ku ñuy sukkal amul kenn ku ñuy raamal dañoo gëm seen bopp. d'accord alors ñu ñu daal di tàggoo. lay mhm. tàggoo. Mhm. waaw xanaa di sant ñëpp rek. Mhm. di sant surtout sama soxna. ndax nit am na yenn euh, situation yi muy toll. tout à fait ay famille am kese ñoo ko mën a soutenir. waaw muy sam tamit di sama yaay ma leen wax ni leen euh, lii yëpp lu ma ci dugal lenn kese la mooy am lu ma leen teralee. teral sama njaboot teral sama mbokk. man nee naa euh, liñ naan jullit bu amee alal bu bari day beew wala nii man damay ñaan yàlla jox ma xéwal gu ne gàññ. mooy dimbali nit ñi. Mhm. loolu kese mooy mu ma plus grande joie. Mhm. billaahi loolu la. waaw kon nag maanaam dafa am ñoo xam ne boo leen naree teg injustice billaahi nga tëral leen rey leen. moo leen gënal foofu ñu lay bàyyi nga leen teg injustice. te dites-vous que ne Eiffage je vais me battre jusqu'au bout avec vous. même si vous allez avoir vous serez serez victorieux wallahi ça ne va pas être facile. ça moom sachez-le quoi parce que man pare naa du ma xaar banque bi di ñëw di ma acculer alors que ñeen ñeen ñeen nañ tëj. <laughs> merci beaucoup à Ousseynou Thiam nekkoon itam délégué euh, du personnel à Eiffage. ñu daal di ko licencier sans droit mu amoon itam contrat CDI ñu koy fàttali naam dàq nañ la waaye euh, amul lenn loo xam ni itam teg nañ ko sa ndodd bi mhm. ko CDI nga amoon am na loo xam ni itam mhm. da leen ko toppee naam wax nga euh, doo bàyyi yëf yi mu sedd ndax nag euh, Cour suprême nga jëm ak ñoom inchallah licenciement excès de pouvoir à Eiffage Euh, autoroute à péage. Mmh. harcèlement. Mmh. Euh, négligence des équipements antennes badge. rapido ak accès mhm. bi nga xam ne itam moom moo euh, indi lii yëpp tey ak euh, risques yi nga xam ne itam doon nga ko wax prime de risque mhm. ya ngeen fay jànkonteel des fois bu manifestation amee mhm. euh, la cay jot a xew ak itam antenne yeeg badge yi ñu koy gërëm bu baax a baax ndax nag wax na lu am solo Euh, entreprise yi des fois itam les les chefs ni ñu ko mhm. mën a duppee dañuy exagérer ci yenn yi mhm. waaye euh, ñu fàtte itam syndicat yi taxawaay bi nga xam ne war nañ ko ci taxaw mhm. euh, ci biir mbootaay gi bu kenn amee jafe-jafe ñoom ñëpp ñu daal di jóg jàppale ko c'est très important message boobu yéen a ko moom ñu koy gërëm bu baax moom Ousseynou Thiam di ko gën a dooleel ci xeex bi nga xam ne moom la nekk jërë ngeen jëf mbokk yi safoo di seetaan sans limite TV amoon nañu mbégte lool ànd ak àndoog nag yéen Merci à Toumani, la Suède Vision. Merci aussi à Bassirou Niang. Niang baalu si mu coro ma jigéen Niang ma ko rafaa binta ndong mi ceelib ak Niang mi ci bangoy ñu ngi koy gërëm bu baax à toutes et tous bonsoir